gis nga Sénégal yi seen yitte fi mu ne nii du ay jalwaar ak ay Pastef ak ay soo jëlee sa énergie yëpp nag ak sa temps yëpp xool nooy faagagalee adversaire politique munoo toppatoo yitte Sénégalais yi tey ñu ngi ci mbënd bi daaw ci ndege si ñu ñëpp demoon nañ ci mbënd bi man ren dama am gàcce demaat ci mbënd bi ñu joxoon fi engagement bu ne tey ay famille entière a ngi tëmb si ndox mi am na yoo xam boo ko gisee. da kii bool sax doo mën a lekk ndax yërëm ñooñu nit ndax mun na nekk ci condition yooyu jamono jooju ana président de la république ana président de la république Sénégal est-ce président ñemewul génn sax wax mu dem fa waaye ñemewul génn sax def déclaration massawu ñooñu waaye mi ngi jé yéeg ci avion bi mu jëndee 60 milliards ay. chasseur suisse di ko escorté ñu koy jëlal ay selfie am na loolu mooy narge sax la peuple jamono joo xam ne tey njëg yi amul produit booy jël te njëg gi yokkuwul ba sénégalais yi amatuñu lu ñu lekk mbir mi métti na ana président de la république ana président de la république est ce que réew mi amati na président jamono joo xam ne génn nañ ci troisième vague boo xam ne. bëggoon na bopp ñëpp li fi jógee ci nit kenn xam nu mu toll président de la république réew yi dox de diggante def naa tugal yi woon seen quatrième vague diggante bi muy door ak bi muy jeex président de la république def na ñeenti allocution sans compter nag émission yi mu def directement ci internet bi nit ñi di poser seen question ñu répondre Sénégal ana président de la république président la bi foofu lañ la soxlee bi nit ñi nekkee ci kuute nga génn wax ak ñoom parce que yaay général bi mais bu bu méttee rek nga daw tëju sa palais ak sa kër kenn du la dégg bu affaire xawee baax da nga génn commencé waat nag taal fitna seet kan ngay song loolu du président de la république je suis désolé yi defu la diir amul leen président de la république jamono joo xam ne barki démb rek waxaat nañu diggante Ndar ak feneen ak feneen ay nit ndaw yoo xam ne ndóol ak ñàkk liggéey ñoo tax ñu ñu doon fexe pour dem tugal dem bitim réew nit lañu ñu ay mala ana président de la bi ñu génnee ci événement mars yi ñaata emploi la promettre dajale taleeb def jam ñaari kan moo fi am liggéey kenn te du ko mës a mën a créer nag parce que mënu ko xamul fu ñuy jaar pour def ko à part politique politicienne nu may def ba falu wala ba faluwaat nu may def ba digg daal def amul beneen xam-xam bu ma réew mi foofu la toll.